ñeenti weer a ngi nii collectif des prestataires de service du centre national de transfusion sanguine jotuñu seen payoor looloo waral dañuy dem grève bu amul fu mu yem. léegi nag li nga xam ne moom lañ jëm mooy plan d'action li ñu waroon def def nañ ko kilifa yi dem nañ waxtaan ak ñoom voix de la presse def nañ ko. bañ ko njëkkee woon def ñu ngi nekkoon période électorale ñu ne à peut-être ah période la yéen mënuñu saafara seen seen tawat léegi jóge nañ si li nga xam ne moom mooy période électorale bi puisque nag jóge nañ si li nga xam ne moom mooy période électorale bi dañoo bëgg li nga xam ne mooy condition yi nga xam ne moom moo war pour que ñu mën a def suñu liggéey normalement ñu mën koo satisfaire te loolu jafewul bu ñu woowee toog ak ñun waxtaan ak ñun dinañ leen wax nan la ak naka la également li nga xam ne moom mooy collectif prestataire bi dañoo décider ne à partir euh, lënd bi nga xam ne moom nañ weesu dañuy def grève illimitée dootuñu demati benn collecte te lépp loo xam ne moom mooy conséquence yoo xam ne dina dina découler si loolu noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom nañ jël seeni responsabilité grève bi nag du lu bees ndax seen ay jafe-jafe yàgg na prestataires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci CNTS ñenn ñi sax juróom ñaari at a ngi nii te amuñu contrat. tey nag ñun ñoo sàkk woon daje bi. pour déjà wax leen li nga xam ne moom nañ jëloon euh, à l'issue première conférence de presse bi nga xam ne jotoon nañ ko def deuxièmement également wax leen li nga xam ne moom mooy PV rencontre bi nga xam ne jotoon nañ ko def ak autorités yi troisièmement expliquer leen yenn problème yoo xam ne am na fi te xalaat nañ ne solution am na pour que ñu mën koo saafara lii daal moom moo sa moom moo taxoon tey ji ñu sàkku daje bi di wax ne jeudi 21 mars ñun collectif des prestataires de service des collectes mobiles bu centre national de transfusion sanguine dañoo woote woon benn sit-in ba noppi defaat benn conférence de presse conférence de presse boobu li ko waraloon moo di dañoo nekk ay prestataires de service nekk papa nekk yaay nekk doom nekk soutien de famille ñu toog lu ëpp ñeenti weer jotuñu sunu payoor te ma leen di wax payoor bi mooy ñaata 5000 francs maanaam ñun lan moo ñu fi indi tey mooy lépp loo xam ne collecte mobile la muy maanaam bu fekkee dañoo war a dem uti ji sang ñu war ko jéggaani génn fi nga xam ne mooy centre national de transfusion sanguine ñun ñii ñëw assurer fonction boobu. moo ne jéem nañu am ay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen kilifa waaye ba léegi furaas. ñu mën a toog lu toll ni ñeenti weer kenn jotul payoor ma leen di laaj est-ce que loolu yoon na yàlla def yàlla def. ñu ne ñun li nga xam ne moom nañ war a def dinañ ko def mooy ñu waxaax ñi nga xam ne mooy sunuy njiit dem aviser leen wax leen ne ah ay la yéwén affaire bi mu muy commencé di ñu ëpp doole. parce que ñun ñii dañoo am soxla nu ñuy bàyyee sunu kër di ñëw ba fii di toppatoo malaadi ñun aussi noonu nañuy feebaree ñun aussi sunuy waajur noonu nañuy feebaree donc du yoon ñuy mën a toog ay ñeenti weer bañ a jot sunuy payoor gannaaw loolu itam. ñu jotoon souligner ay problème yu bëri yoo xam ne ñun ñu ngi koy jànkonteel ci liggéey bi nga xam ne moom nañ nekk di def parce que des fois il nous arrive pour que ñu dem collecte ñu am yenn problème yoo xam ne problème la si wàllu nit ki tey bu fekkee ne yaa ngi ñëw ngay ut sang sa protection personnelle ñu am ko si li nga xam ne mooy ay heures supplémentaires il nous arrive tey ñu ñu dem collecte de huit heures ba seize heures moo ne du ñu am heure supplémentaire ñu ngi ñuy yëgal ni nag responsable CNTS yi tàmbali woon nañu sax recruter ay stagiaires ngir remplacer ñii di ñaxtu tey jii ba ñu fay jógee nag service yi CNTS yi service minimum la doon def ndax poche de sang yi doyul